asalaamaaleykum mbokk yi yéen a ngi déglu rajo defaral suñu bopp seen xarit Baye Diouf euh, ñëw indi leen vidéo bii nga xam ne mu ngi circuler depuis ay jours fii ci euh, Italie mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu suñ ab xale sénégalais foofu ci dëkk boobu ñuy wax Firenze euh, ay policiers en civil mais ni ñuy bëreeg moom xoj ko xoj bu métti ba muy yuuxu yuux yu métti ngeen koy dégg vidéo bi peut-être. Euh, voix bi jàllul mais su ngeen ko déggee ci original da ngeen dégg muy yuuxu naan way suma ndey way yaayooyu way suma ndey muy baat boo xam ne euh, wax dëgg yàlla duñ koy faral euh, ci dëkk bi mbokk yi muy jëf ju ñaaw la waaye nag dinañ am luy njëkk di préciser ne alkaati yi képp kum arrêté bugg laa contrôler waloo daw loolu loi bi moo ko waaye nag du motif pour daane nit ki nii

Euh, Mamadou Sall du président association sénégalaise ci Firenze euh, jóg jël na ay matuwaay ba alerter autorités yi mu commencé une consul honoraire ba Florence muy Firenze waaye aussi ak suñu ambassadeur ba nga Rome Pape Abdoulaye Seck euh, en collaboration avec le ministre des affaires étrangères du Sénégal euh, na ba def ci communiqué xam naa euh, ci deuxième vidéo bi communiqué boobu lañu leen indi mbokk yi donc lii mooy li nga xam ne moo fi xew Firenze nag dëkk bu doy waar la boo xam ne kenn xamul lu tax waaye daal suñ mbokk sénégal yu bëri dina leen fa di sonal ñuy fàttali rek ne ay at ci ginnaaw am na waaju fekkoon ay sénégalais ca marché ba dóor leen bali fetal ñu ciy wax tamit ca quelque année tamit keneen tamit beneen sénégalais rayoon nañ ko ci loolu muy acte de racisme yoo xam ne dañ ko war dénoncer Euh, ñun doomu sénégalais qui nekk fii ci Italie rajo der France suñu bopp ñëw di mbir te wax euh, gis nañ association sénégalaise bu bi lim ci taxaw notre euh, représentation diplomatique représentée par le docteur Pape Abdoulaye Seck def na ci communiqué mbokk yi na sax ci communiqué indil ci deuxième élément pour